ñu ngi am mbégte dalal Abdoulaye Dieng mu bokk ci euh, commission logistique euh, ak moyen bu Yewwi Askan Wi nekk itam euh, ci plateforme avenir Sénégal bi nu bëgg Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci matinalu Rewmi FM. waaw soxna madame ngoom ñu ngi lay nuyu yow tamit di la tatagal di la wax ni namoon nañ sa rajo bi réew mi FM namoon nañ la. yàlla yàlla defal jàmm jërëjëf mhm. réew mi moo la raw alors ñu tàmbali waxtaanu tey bi ak euh, Ousmane Sonko mi nga xam ne finalement doyen des juges nee na nañu ko àtte ci kanam chambre criminelle pour viol ak menace de mort lan ngeen di xaar si procès boobu donte date bi jàppaguñu ko bon comme li sénégalais yu bëri wax doyen de juges moom dafa nekk il est en train de rater le train de l'histoire dafa nekk di rater le train de l'histoire et c'est dommage pour lui et euh, et, pour la postérité mais li ñu leen di wax mooy ñoom association lañ yor ils ont leur agenda le le doyen des juges Macky le président Macky Sall ak ñi mu àndal mais na xel dañuy dalal xel yi man bokkuma Pastef duma élément Sonko duma patriote je suis un sénégalais un sénégalais boo xam ni dafa dëkk Sénégal juddoo Sénégal Macky Sall le président Macky Sall ëppale wu ma fi. ay mbokkam ëppale wuñ ëppale wuñ ma fii man tamit ëppalewul ëppalewu ma leen fii donc dañoo nekk ci réew moo xam ni duñu ñàkk fayda du ñu toog di seetaan ñu ñuy moom ak di doog toog suñuy dugg bopp ak di ñu wax fii ngeen di jaar réew mi réew bu ñëpp bokk la 17 millions sénégalais yi li leen di wax rek mooy euh, proce bi ñu xam dañ ko yóbbu ci chambre criminelle bi ak lu mun munti xew ak lu mun munti am ak lu ñu munti programmer du jàll di leen taxaw jàmmarloo ak ñoom wan li leen carrément que ni du ñoom ñooy dogal ginnaaw yàlla du ñoom ñooy dogal ñun ñëpp li ñu bëgg mooy am li Sénégalais yi bëgg mooy am te ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko deful taqul jegewul ni ñu def ba faagaagal Karim Wade def ko ba faagaagal xalifa euh, Sall mais quand même Sénégalais xam nañ ni noonu lañu bëgg a def ba faagaagal Ousmane Sonko liñ koy jiiñ di ko ko taqal ñoom seen jëmmi bopp. damaa fa ma dama xamatul ñun ban réew la ñu ne. soxna si ban réew la ñu ne man loolu laa bëgg Sénégalais yi c'est une question boo xam ne maa ngi wër réponse mënu maa fex ba xam ko te Macky Sall gëw moo ni 2023 ñun bañ koy fal bañ koy fal gëw moo ni dinañu demal 12 ans après delloo si waat ñu 40 ans après waaw parce que bëgg a nit déporté ko loolu ci réew ci régime Senghor lañ ko fi gisoon taqal Mamadou Dia déporté ko yóbbu te dara amul woon ci li liñ ko liñ ko doon taxal loolu nag Sénégal boobu nag nekkatul Sénégal léegi. fii kenn du fii dóor doom di fi làq doom Ousmane Sonko bu soobee yàlla jàmm rek lay am ko dara ko dara ko dal. alors euh, bëri na lu fi opposition bi waxoon du fi am te am na fi euh, président Macky Sall ba mu bëggee tëj Karim Wade ba bëggee tëj Khalifa Sall loi parrainage bi yooyu yëpp dañ ne woon du fi am te am na fi est ce que tey yéen su décidé woon éliminer Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee am ngeen moyen wu taxaw jàkkaarloog ñoom donte nee nañu la xewoon mars mbetteel la woon moo tax mu demee noonu waaye dootul ni demee parce que lépp luy moyen état moo ko yor te dina ko jëfandikoo ndax tey kon mën ngeen a jàmmarloo ak ñoom. Euh, waaw soxna si dama lay wax benn mbir li woon ci xalifa nekkoon ko ci euh, Karim wàdd boo xoolee kaawu Karim Wade dafa xaw a différent ak kaawu xalifa kaawu xalifa ak kaawu Karim Wade différent ak xaw su Sonko Macky bi mu toogee moom moom premier c'est c'est tout premier jour au pouvoir il a pensé à écarter les potentiels ces potentiels les potentiels euh, euh, euh de de de du PDS pour bañ ñu teel a ñëwaat au niveau de de de deux mille euh, euh, deux mille dix neuf. looloo tax mu écarter woon mais avant mu koy écarté dañ ko tam dëmm. moom moom moom moom moom gëlëmal Sénégalais yi ba Sénégalais yëpp sax yaakaar ne dëgg la. am na compte fii ay milliards. Singapour am na fa ay milliards fee ay milliards te ara aram lépp dara amu ci. Sénégalais yi après ils compris que kii nag il est en train de jouer avec le Sénégal jël ñi àndoon ak Ablaye Wade ñi nga xam ne teew toogoon nañ ci milliards yi. bëri woon na ci ñun gis nga xoolal on n'est pas amnésique te deux mille deux mille ba deux mille douze yàggul li fi xew yëpp tamit xam nañ ko. Abdoulaye Wade ñi mu fi àndaloon mais dootu suñu xaalis tamit nañ nañ waxante dëgg bi fi nekk bëri woon na ci ñoo toogoon ay milliards moom mi woon ci gouvernement Abdoulaye Wade xam na ni ñoo toogoon ci milliards yi su ma leen faagaagalul dañuy teel a ñëwaat benn mandat laay am pare ci looloo taxoon mu jël du ma fi tudd ay tur mun naa ci cité ku mel ay Aïda Diong ay Samuel Sarr ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne toog nañ ci ay milliards mu jël leen euh, faagaagal leen ñëw ànd ak ñoom ay Awa Ndiaye ñoom ñëpp ñëw mu ànd ak ñoom pour sécuriser boppam jël ke yóbbu fële ndax sénégalais yi ni leen dafa sàcc ay milliards fekk araam daal di xëddeen topp tamit Khalifa Sall fekk ko mairie bu Dakar indi ay avocat am pratique boo xam ne am na fi depuis Mamadou Diop bu njëkk ba ñu ñëw xam ne loolu yoon xëy na bu ci amee lum ci dugal mën nañ ko ci faagagal ñu jaar ko foofu ëpp ko doole jaay ko doole mais kii bokkul ak situation yooyu kii deful deful dara ba dara boole jeex. li koy firndeel mooy bañ ko jiinee ni dañoo dañ ko dafa dafa def dafa violé. waaye ñoom dañoo dañoo woo seen docteur bopp yàlla mi dara tëwul docteur ba def def eh, expertise am ni leen xale bi li ngeen di wax dara amu ci waa mais loolu war na doy loolu nag ñun ci loolu la ñuy sukkandiku dara lu toll nii tarafetaay ay ko may pare nañ bi yoon moom on est déterminé lu mu leen jaral ñun jaral jaral nañu mil bi. pour kon daal mën nañ xaar jàmmaarloo comme mois de mars ba nam demee woon lu ma la wax man dama ni la xaw ma jàmmaarloo lay doon xaw ma délogé palais lay doon. man xaw ma lu muy doon mais moom bu mu xam lu muy doon moom Macky Sall hmm. waaw parce que celui qui sème le vent récolte forcément la tempête d'accord léegi ñu ñëw ci Cheikh Yérim sekk génnee na livre bu jur coow lool tudd ci ñu baree bari rawatina ak Ousmane Sonko euh, moom njiital Pastef fas yéene yóbbu yëf yi ca yoon yónnee ko directe capitaine Touré itam euh, nara def noone naka nga jàngate livre boobu ak ndax itam jàpp nga ni jaroon na ñoom ñi ma tudd léegi ñuy dem ak moom ci kanamu yoon. gis nga man dama am dama am naqar damay toog empêchement au cœur. Hmm. ndax réew mi nañ ko liggéey te ñu bàyyi di lërmbët vie privée jàmbur yi ñun ku ci nekk yàlla daf ñoo bind ci matadi yàlla daf ñu bind ci matadi li ñu topp li ñuy toppee Ousmane Sonko dara amu ci mais même bu demoon sax fekk na am na sax loolu yoonu kenn nekku ci ñu jël xale bu jigéen bi tëj tëj seen tëj ko nangu téléphone di ko wax ni ko defal lii muy def xale bu jigéen bi kenn mënu koo gis ay mbokk mënuñu koo dégg kenn nu am ci moom benn information dégg naa nangu nañ sax téléphone di ko tiital naan ko defal lii defal lii defal lii boo defal lii lii moo la ciy fekk boo def actuellement elle est téléguidée li muy def xamu ci dara li muy wax xamu ci dara ma wax muy laaj procès public li muy def xamu ci dara elle elle est elle est elle est omnibulée par par l'argent gëmloo ko ni ko den la def lii defal la lii yóbbu la fi de moo tax muy rëpp rëppi di daal mais nañ koy wax ni ko na daal àdduna bi des na lu bari te àdduna bi dara jaru fi bu loolu weesoo Cheikh Yérim mii ngay wax soxna si man de wax dëgg yàlla àdduna du neex neex ba muy dugg ci vie privée jàmm ak lu ma la xamal xamal xamal man la man kër ga ma dëkk à la kër ga mu dendal benn mur kër ñoo ko bokk mais y ministre boo xam ni def na fa ay ñombe mi ngi ci biir gouvernement bi ñu ma wax ko man leen man man du ma genre boobu du dugg ci loolu àdduna du neex baa mu naqari ba may jël doomu aadama di ko yàq Cheikh Yérim nag ñun ñu ngi doon xaar ci moom ba mu nee dafay def retrait nañ ko baal nañ ko jéggal day def retrait amoon fi ay tolof tolof sénégalais yi ngañ ko fi ndax dundoon na fi loo xam ni ay tolof tolof la ba ci ba egg si si doomam ñu leen yaakaaroon ne dana toog buy génnaat day génn def luy def luy def luy defar wala muy wax luy defar mais lii daf may fàttali que ni kat li ko nit ñi doon li olof ñaanaa ñu lay jiin dëmm ñu fekk la ngay fecc euh, si euh, soccoo yaxu liir dañuy xam ne kon kon kii am na yeneen intention yu ko tax a jóg la muy wax ci Sonko bu doon dëgg sax ñun intéressé wuñu bu doon li mu wax ci Sonko moom bu doon dëgg sax wu ñu wuñu amaana Sénégal yëpp xam na ni dara amu ci dara ba dara booroo jeex amu ci donc euh, wax wax ko daan seret la ci léegi jar na ñuy dem ak moom ci yoon kon fekkente ni ni nga wax nii noonu la. jar na waaw xam lax mu jar ko euh, tegg tuuma du ragal. waaw setal sa der waaw setal sa der la. tegg tuuma du ragal setal sa der la. loolu kese la. waaw alors jafe-jafe am ci wàllu transport ci Sénégal accident yu baree bari ba jéggi dayoo état jël ay mesures ñaar fukk ak ñaar mesures yoo xam ni peut-être jur na coow euh, ci biir euh, acteurs yi mais ndax jàpp nga ne yooyu dogal mën naa indi ndéegum saafara peut-être le temps que ñuy am ay solution yu gën a jàppandi ndax mesures yooyu solution la. gis nga bu ñuy wax ci transport dama lay ñaan tuuti rek dama ci am naqar am na dama jóge voyage. benn fan deuxième jour bi ma dem boo mën a jël oto pour dem seet samay mbokk xeex garage. ndax xeex barki na damaa xeex garage ndax injustice bu chauffeur yi di teg client yi. lu leen neex da nga yor saagu saag bu ndaw sax ñu la fayal 2000 francs Sénégal moo nekk réew moo xam ni on a un gouvernement. réglementé wuñ dara non réglementé wu on a un gouvernement laxiste. réglementé wuñu dara te nee nañ yee dañoo jël dañoo jël dañoo jël le plus grand garage de l' Afrique de l'Ouest privatiser ko dénk ko benn public booy tuur ndox sax da ngay fay nous sommes dans quel pays boo boo duggee garage nga xam ne yow yow li bi ngay jënd pour pour mu transporter nga dem sa dëkk billet boobu oto bi da ciy da koy fay da ciy fay bon ci garage bi yow léegi boo yow boo bëggee boo bëggee da ngay fay ñun daal li mu la mën a wax mooy le Sénégalais est en danger tant que ñii ñu ñu jiite ñoo fi ne le Sénégal est en danger mun ñoo régler santé. mun ñoo régler éducation mun ñoo régler transport mun ñoo régler dara li ñu mën daal mooy ay ay combine ay taqalaate ay sosolaate ay programme ay préparer troisième candidature troisième mandat loolu daal moom ay dañ ci ay ñu ci ay ñu ci leneen. pour dellu si waat ci sa question bi ci wàllu transport bi. transport bi depuis beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup dafa sooxee li mu sooxee nag mooy da gis koo xam ni njëg njaayam la yaakaar pour dund si njabootam. nan ko tegal sa njëkk ñaay mais boo ko tegloo njëkk ñaay bi moom moom après moom lan lay def yow léegi utal ko solution utal ko solution donc loolu moo fi nekk mais état bi am na tey ay oto yu yu nekk gaaru routière yoo xam ne oto yu bees la nga jékki-jékki rek ñu ni ñu ni ministre Mansour fay dugal si ne leen fi xamoo ci yenn condition la leen fi dugalee xamoo ci yenn condition xamoo xaalis bi oto yi di verse sax fu mu jëm ñun amuñu benn information ci li xew Sénégal doy na waar daal soxna si. waaw doy na waar. d'accord kon daal solution jàpp nga ni mooy xëy na renouveler parc bi ak euh, yeneen ak yeneen waaye du ay tere daw guddeeg yooyu. tere daw guddi man de wax dëgg yàlla su ma daan dem weekend su may ñibbisi quatre heures trois heures du matin laay départ fa ma dëkk. egg si Dakar sama école sept heures du matin mën a def cours waaye léegi man ak ñi mel ni man bëri nañ ki war a jóge Tamba ki war a jóge Kédougou nga ko bul daw guddi. te des fois sax xam nañ ni oto tali yi sax guddi lay gën a libre tali guddi lay gën a libre mooy li ma la wax rek ñun ay cuune lañ ko seqal ay cuune nag boo ko seq ak ñoom musiba rek moo lay dal waaw donc loolu du alternative li ñu wax du solution balaa ñu ko doon wax balaa nga naan naan ne fa loo xam-xam ma demba ma demba gën laa xam demba balaa ngay jël benn solution wal transporteurs yi woo clients yi association de clients am na les responsables euh, syndicaux des transporteurs ñu ngi fi mais nga waleen dans une large concertation nga waxtaan ak ñoom ñoom dinañ la wax ñoom ñi nga xam ne mbir mi ñoom la ko impacté gis nga ñi génne ñi génne mesure yi ay huit huit yu jar ay cinq cent cent millions lañ yor ñoon seen yoon ñoon lijjanti wun gis nga gis nga Sénégal bii xam lu fi ne ñàkk yërmande bu ñu ñu jiitee ñàkk yërëm mais nag nañu waayal seen bopp loolu rek laa am leen di wax bu fekkee dañoo yaakaar ni ñun sénégalais yi ak jeunes yi dañoo toog di leen bàyyi ñuy def lu leen neex ñetteelu candidature dama ni la ñetteelu candidature laa lay xamal ni la Macky mercatum boobu mu naan bokk di ñëw 2012 taxawandoo place de l'Obélisque ñu nag moom ak ñi mu àndal maa ngi fàttaliku ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm suma grand ba Alioune Badara Cissé ñoo daan taxawandoo maag moom chaque instant place de l'Obélisque bu ñu daan waxtaan musul gëm affaire troisième mandat Macky Sall loolu daan loolu daan wax devant tout le monde euh, euh, euh, la candidature de trop nañ wax na dëgg bu fekkee fii nag dafa am lu fi ñor bañ koy boo xam nañ ñu ko wax dara dara dara dara dara waru koo jaral mu bëgg a gëmloo Sénégalais yi que ni moom da koy def ñu ne duñ ko seetaan Sénégal moomu ko ñun ñoo ko bokk Sénégal la ko defar Sénégal la ko may li mu am Sénégal la ko yéw yéegal fu ay moroomam eggul bu ñu mënul delloo teraanga boobu ñu foqati ko ndax baadoo la xamul yeelaa hmm, d'accord alors ñu ñëw ci avenir euh, Sénégal bi nu bëgg ndax yéen a ngi waajal waaw ñun avenir Sénégal bi ñu bëgg li ñu li ñu li ñu yittee suñu yitte dëgg mooy nekkinu askan bi ñu ngi ci biir coalition yeewu askan bi ñu ngi fa nekk am fa suñu place di fa liggéey liggéey bu mucc ayib yaakaar naa ku nekk xam na Cheikh Tidiane docteur Cheikh Tidiane Dièye euh, madame euh, faatu Blondin ñëpp xam nañ ko ñu ngi liggéey seen liggéey nekk ci biir coalition bi ànd ak leader yi bokk ak ñoom taxawaay nekk benn nit gàddu def benn say di liggéey loolu daal moom moo fi taxawagum leen loo xam ni ah, war nañ ko am muy taxawaay bu ñu war a am bu jotee rek incha di dinañ génn wax ko askan bi voilà. alors euh, ndax euh, ci Yewwi Askan Wi itam ñëpp a ngi gis seen bopp est-ce que yëf yaa ngi dox ni mu daan doxee parce que ñu bari ñu ngi ragal yëf yi tasaaroo euh, ndax ku nekk ma ngay xàll yoonam di waajal élection 2024 est-ce que loolu tam ragaluñu si biir mu mu poser problème. waaw comme on a l'habitude de diir rek aucune œuvre l'œuvre humaine n'est parfaite l'œuvre humaine humaine n'est pas parfaite loolu moom day am des fois nga gis euh, euh, xaw a ñi xaw a am tuuti lu leen xaw a naqari ci doxalin bi wala ci doxalin bi mais li may faral di wax naan li ñu boole moo ëpp moo ëpp fukki junni yoon li ñu war a mën a tàqalee ci ñun ci siège boobu lañ nekk ci taxawaay boobu lañ nekk ci doxalin boobu lañ nekk li ñu boolee yeewu askan bi moo ëpp fukki junni yoon li ñu mën a tàqalee waaw loolu moom na ko Sénégalais yëpp xam. na Sénégal dalal seen xel ci loolu te it de candidature yi nga gis muy am. c'est parce que loolu en amont lu ñu waxtaanee woon la depuis yàgg na. nañu bokk demandoo élection pré législative demandoo élection locale mais bu ñu demee ba ci cappaandaw la candidat bu fi sentir sa bopp war ngaa mën a génn def sa déclaration porter sa candidature. candidature multiple loolu lu yow askan bi yàgg promouvoir la lu yàgg lu mu yàgg bëgg la parce que loolu mooy suñu avantage loolu mooy suñu njariñ mais ça ne veut pas dire que dafa am ay effritement wala wala tasaaroo macha allah dara amul fa mm. waaw ñu ngi lay gërëm Abdoulaye Dieng fàttali ne yaa ngi bokk ci avenir Sénégal bi nu bëgg plateforme boobu itam bokk ci Yewwi Askan Wi ngay membre ci commission logistique et moyen bu coalition yow di Yewwi Askan Wi amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinal bi tey jërëjëf euh, madame gom maa la gën a am plaisir comme li moo ko waxee na namoon naa rajo bi trop macha allah yàlla na leen yàlla def ak jàmm defal ko Sénégal te yàlla musal ñu ci président Macky Sall intention yi mu am lépp loo xam ni am na ko ci intention boo xam ne gënul ci Sénégal te sénégal yi bëgguñu ko yàlla na ko yàlla wàññi mm-hmm. ba du dal suñu kaw jërëjëf.